affaire neex bi dugg ah. waaw gisul nag garaaw waaw am na ñu ma jël nag waaw. boo koy def ko soo koy def tamit. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi siyaar bu baax soxna si. tur bi naka la. tur bi tur bi Idi Sañ la. Idi nan nga ci mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeeku. waaw Mouhamed mii sama doomu ndey la. waaw sama rakk hmm. waaw ñoom ñëpp man maa man maa si sama yaay ñoo bokk ndey ba waaw sama rakk la. sa rakk information moom yi moom mbir mi moom yenni yi tooñ la waaw ndax tey jii. tooñ si naka. tooñ ndax nit même sax boo ko fekkee sax lu ñuy tere amoo droit dóor man mii di wax ak yow damay waxee si ancien militaire classe 2002 2002 laa dem armée dem Batpara Batpara laa nekkoon. kon man tey xam naa loi lu mu wax ak lu mu tere mais loolu musul am si benn loi waaw mais ñoom xam man nu ma mënul comprendre nga jàpp nit vingt ba ay minuit di ko yóbbu vingt lañ leen jàpp si biir kër gi sax foofu lañ leen njëkk a xam nga tamit nit nga fekk ko si biir néeg doo ko pompe à ba pare ëpp buntu néeg bi mais loolu mooy la loolu mooy kon ñoom dañu jëloon question ne dañ jëloon ci intention pour jéem a booy vingt heures ba minuit moom bi wër nañ leen fu ne mais technopole ba lañ leen yóbbu xam nga ne koo yóbbu technopole yeew ko di ko dóor ay cours xamal ne kooku mooy dëgg da nga koy rey waxante dëgg tamit yéen ni waaw ah, mais mais lii lii ñi état da si war a jóg waaw ndax ñun tey jii lii du duñu duñu duñu bàyyi de. bàyyi duñu bàyyi bu yaboo ñoom nañu préparé bu bu état deful lu leer lu gaaw. dinañ ñu rey ñun par kenn par kenn. ñooñu Pikine fii ñëpp leen xam xam nga Pikine fii moom benn bopp la Pikine fii xale bu ndaw sax day xamante koo xam ne mu ngi dëkkee benn secteur ñooñu xam nañ leen fii bu baax a baax te tamit ak ay ASP tamit dañ ci raxaale ay ASP te xam nga ASP moom amul droit sax téye nit bay dóor toppee lan moo sabab histoire ñoom a tooñ wala dafa am leen di toppee moo indi ñoom ñoom ñoom xamante nañoo booy boo bëggee dégg dëgg ñoom xamante nañoo booy yi yàgg nañu di jàpp booy fekk booy yi di tux wala booy yor lu ñuy tere ñu encaissé booy yi xaalis ñoom ak booy yi xamante nañu bu baax a baax xam naa nag lii boo gisee mu demee nii nag dañ doon jéem a encaissé booy yi booy yi bañ. mais man loolu moom wóoruma waaw mais loolu man moom wóoru ma wax dëgg fa yàlla moom waaw mais li nga xam ne man loolu lañ ma wax te ñu dëkk si kër gi ñoo ma ko wax ndax man tëngeej laa dëkk mais man fii lu xew Pikine man dama koy yëg waaw maa ngi tëngeej mais Pikine fii man sama lépp fii la waaw non lépp lépp après ñun ndax ñun lu si waroon kayit yëpp mu ngi ñun waaw no man waa gis naa ko ndax ndax man ni depuis boobu ba léegi man maa si toppoon di dugg fu ne pour lijjanti kayit yi man boobu ba nii ba tey ji talu ma sax lekk te maa ngi woor waaw bu ma ndogoo ba naan kafe rek jeex na du ma nelaw no man gaaw ma jooy mais tey moom dama jooy waaw man gaaw ma jooy nag waaw mais tey dama jooy ndax man li ma gis tey bu ma juddoo ba léegi musu musu musu ma gis mm. waaw no gaañu gaañu yi dafa métti dafa métti bopp bi bopp bi faar yeeg moom daal yaram bi daal moom daa yàqu moom wax dëgg fa yàlla waaw yaram bi moom dafa yàqu waaw kon kii nu mu mel nii kii boo ko gisee nii da xam ne kii même bu dundaatee sax du baax waaw même bu dundaatoon sax du baax waaw am nga kenn koo xamante ni expliqué na naka lañ leen doon wala lañ leen leen dóor wala man kii bi sama sama kii bi frère bi moo magam mu bokkoon day ak baay Iba Diop moom moom moo leen toppoon moom moo leen toppoon waaw mais kii bi euh, beneen booy bu ñu escanté ba wekki bëñi boy boobu moo ko ne technopole lañ leen yóbbu ak dañ leen yóbbu technopole jëlee leen fa dugalaat leen biir arène ba bir arène nationale ba pare mënatoo len di len door ay cour boy bobu ñu escanté ba defeere ko koku mo wax lolu Ibba wa te koku mom tamit da son wa waaw non moom nii non moom kii nañ ko defeere nañ ko wa defeere nañ ko lan nga nga mëna sédé ci ki ni mom mo fi maa ko di ki mako yar ndax tay ji man ak mom ñi ñun ñun suñu mam ñun mo ñu yar mm. ñun suñu mam mo ñu yar mm. waaw moom yaayam dafa teel a gaañu sama maam nag yor ko benn moment sax sama yaay jëloon na ko yóbbu ko tëngéej ñuy yeewandoo benn kër man ak moom waaw benn kër ñu koy yeewandoo sama rax la mm-hmm. du ma dugg pikin tey dégg teewu te seetuma ko ba gis ko mm-hmm. waaw nit ku baax la mm-hmm. te tamit alalam du ko booleek mindeef waaw tey tey jii fii pikin fii amul kuy taxaw ne mu musul lekk xaalisam waaw lu mu yor ci poos bi yaa ko moom waaw. waaw waaw ok merci jër mais daal man daal li ma siy dolli mooy lenn la policiers yi nan nañ wax ak ñoom liggéeyuñu ñoom seen bopp xam nga nit booy booy aar ay nit da jubale mais ñoom jubuñu ñoom ñooy bandi yi ñoom ñooy criminels yi boo bëggee dégg-dégg lii moom duñ ci bàyyi dara xam nañ leen ñoom ñëpp nag bu si état deful dara dinañu rey ñun ba ñu jeex par kenn par kenn mm-hmm. waaw merci jërëjëf